ñi ñi ne ñi ne sa popularité seen popularité virtuelle ñu am dëgg wala déet. loolu wolof nee na li ci kanam rawal ay bët. bon très bien alors Latir donc euh, bu ñu abordé deuxième partie émission bi mënuñu wax tey te waxuñu ci violence politique bi nga xamante ne nemmeeku nañu ko tey violence politique bi ñu nemmeeku tey Ibrahima Fall déjà. fan nga yaakaar ne euh, fa la bàyyeekoo balaa ñuy ñëw euh, ci biir a biir li nga xam ni moo nekk ay jafe-jafe ci wàllu campagne bi li ko sooke lenn dong la koo xam ni kii warul woon a sëmp ndëndëm ni faaw mu bokk loolu dong la bu fekkente ni dindeeku na rocceeku na ñu am élection ci jàmm du leneen dama la ragal a laaj bu rocceekuwul nag dama la ko ragal a laaj parce que tu vois c'est xam nga bu fekkente ni bu rocceeku jàmm am bu rocceekuwul nag eh def ba ngeen matalee alors def ba ngeen matalee seen yéene boobu te laaj du am ci réewum Sénégal bi ñu bàkkee jàmm ak salaam. loolu ci lañu taxaw di ci def suñu kemtalaayu kàttan loolu moo tax ñuy def ay manifestation ngir moom mu xam ni li warul a am du am et violence bi nag ay la yéwén ci moom la jóge ndax boo seetee doxu ñaxtu bi fi amoon bërki démb rekk et dañu ko teg ci yoon article mu ni bu fekkente ñun dañu nekk ci campagne électorale képp koo xam ni mbër nga yoon may na la nga def sa manifestation def sa dox ñaxantu wala sa caravane wala lu la neex te kenn du la mën a gëtën loolu la yoon wax dafa am dafa am rek fu ministre bi euh, xaw a jàppe poñ ma bëggoon ñu leeral ko parce que maître Ousmane Ngom mooy chef de sécurité bi daf nii euh, ñi ko déposé du ñooy candidat loolu laa bëgg mu leeral ndax yéen ko déposé wala parce que bu fekkente ne ni M23 ñoo ko déposé Alioune donc dafay dafay dafay méngoo ak lu yoon wax bu fekkente ne nag euh, loolu amul kon moom moo dëggaate yoon lan moo si am li am ba des moo di ñun ci mbër dañu ne ku nekk am na wàllu wooy bay manifestation boobee Cheikh Bamba Dièye moom moo def li nga xam ni daf ko def ci suñu tur ñun ñëpp jébbal ko autorité administrative yi. Cheikh Bamba Dièye candidat à la présidentielle la présidentielle yoon may ko fu ko neex si réew mi élection euh, manifestation bi ñuy war a def suba ak gannaaw suba man Ibrahima Fall maa ko sooke bind kayit jox ko ak euh, autorité administrative yi kon su fekkente ni keneen tax ci yokk te waru ci woon a yokku waru la ki nga xam ni kii def na ko war koo def ñu jox ko yoon waaye sukkandiku nii Alioune Tine waru leen a woon bind loo looloo tax ñu bañ ko te fekk na laata Alioune bind leen seex Bamba Dièye bind na leen wax ni leen dafa bëgg a def nii dafa bëgg def laa kon ka candidat ba bind loolu ci la waroon a sukkandiku waaye li am ba des moo di bu ñu ko nangook bu ñu ko nanguwul ni ñu ko defee woon démb lañu koy defee suba bu suwaa bu neexee yàlla bu ñu julee tisbaar ba noppi dinañu fekk place de l'indépendance. waaw waaw waaw monsieur Fall xam nga yéen da ngeen di wax euh, vous êtes pacifique yéen da ngeen di bëggu leen bëggu leen yee fitna wante. boo leen bëggee yëngatu autorité ni doo leen yëngatu boo leen yëngatoo loolu boobaa fitna bi jóg. waaw yow defe nga ne ma ni nga ne tey su ma la jëloon mboq la. ah maa rey la jëloon mboq la. Ah. yow doo fippu. Ah. Ah. bon merci beaucoup monsieur Fall bon. Euh, dañ dañu dañu dafa am question boo xamante ne ni observateurs yi wax nañu ko te je pense que ku nekk si ñun di sénégalais euh, ràññee nga ko seetlu nga ko mooy Sénégal dafa am euh, héritage colonial ci wàllu politique maanaam lu bari dañu ko copier coller alors que fo la ñu copier coller ñooñu dañu am seen histoire par exemple en France nga xamante ni li ci ëpp ci seen start moom la ñuy doxee bi ñu amee indépendance li ñuy woowee indépendance ba tey waa France dañuy def seen révolution wadal ay bopp xeex ko tour ba noppi soog fa àgg marital yi ñu mu xew si réewum Sénégal waaye ñooñu fa ñu jaar a jaar a jaar ba am lu ñu am tey ñu ñu ñëw rek jël lañu am ñoom rek copier te sóoraale wu ay facteur culturels yu nekk ci biir réewum Sénégal ay facteurs religieux yu nekk ci biir réewum Sénégal ak yeneen i facteurs yoo xamante ne nii du méngoo ak ñooñ seen tarix ak seen jaar-jaar alors tey jii comme loolu am na ba noppi de toute façon am na ba noppi copier coller boobu am na ba noppi te ça ne colle pas avec notre histoire à nous Sénégalais nan Ibrahima Fall ngay fexe ba loolu nga faj ko ba faw boo toggee ci boppu réew mi ci ñetti fan benn benn mooy ci jikko yi moo tax ñu ni nañu jubbanti jikko yi ndax bari na jikko yoo xam ni dañ leen a jëggaani bitim réew bëgg ko fee saxal faaw ñu taxaw ci dem pour ñu jubbanti jikko yi benn ñaareel bi moo di démocratie dafa am loo xam ne lii ñépp a ko bokk ak loo xam ne lii ku ne yow yaa ko moom waaye niroole woo ko ak keneen kon bu ñuy jëggaani dañu war a jëggaani li nga xam ne lii ñépp ñoo ko bokk c'est des principes universels respect des droits de l'homme respect des droits et des obligations yamale te loolu itam wax dëgg yàlla suba ko ñëpp bokkee sax ñun bokk nañ ci gis nañ ci suñu bopp ndax bu fekkente ne danga ay am ay doom boo leen yamalewul wala nga am ay jabar yamalewoo leen bu subaa di nga am di nga am ay difficulté dëgg la wala du dëgg loolu bokk na ci suñu aadam boo demee ci alxuraan wala nga dem ci bible dañ la naan yamaleel nit ñi kon loolu bokk na ci suñu aada li nga xam ne lii itam moom la war a def ñetteel bi moo di kenn du jalgati yoon yoon bu fi nekkee nekkewu lépp ma sàmba nekkalu fi ma demba ñépp la fi nekkal kon koo xam ni kii yaa ngi ci sa yoon kenn warul la ñëw teg la ay tuuma walla jafe-jafe ba di la toroxal loolu lañ nit na fi jóge gis nga léegi ci régime bi rey nañ fi nit dóor nañ fi nit ay marto dem nañ ci station euh, télévision yi dal ci seen kaw lu mu jur du tus la jur jurul dara jurul tus loolu lañ naan injustice gis nga ñoo xam ne ñii dañuy def ay tooxi doona wala seeni doom def ay tooxi doona samedi soir waa parce que ay ministre lañu su ñu waa su su suñu jëlee seen doom yóbbu commissariat cinq minutes après ñu téléphoné ñu jëlee seen i doom pour ñu dellu seen kër loolu dafa fan lañ ko teg dama ni. ci masla masla tamit si suñuy valeur la bokk c'est vrai c'est vrai masla suñuy valeur la bokk. masla moo waral masla masla moo waral tey jii su ma amee un frère policier su ma amee problème. su ma suñu nangoo sama permis dama koy woo mu ne ma jaara commissariat fekk fa sama tel collègue mu jël. waaw gis nga nag maslaa la loolu du maslaa. Eh bien lu mu doon xam nga luy maslaa li wolof naan dëgg kenn rekk moomu ko boo gisee ñaar ñooy wax dëgg gaa ngi ci seen diggante da ngeen di maslaa ci bañ a jàpp position kii bañ a jàpp position ngeen daje loolu lay masla waaye maslaa du def loo xam ne lii jalgati yoon la man mus nañu jël suma permis parce que dama doon dawal am ku ma woo ci téléphone ma daal di jël téléphone bi di déglu agent bi arrêté ma ni ma yaa ngi def lool de aaye nañ ko ma ne waaw ay la yéwén di wax nga baal ma mun ma non duma la baal ma ne ko ah am nga ci droit mu jël suma permis defal ma attestation ba ma demee polis daje faaki di ñun ma laay monsieur Fall ah non non yow kay kenn du la teg loolu ma ne ah ah ni ñu koy tegee leneen nañu ma ko tege mujj ma ni mujj ci négociation lay négocier ba ñu nangu man ma fay pénalité bi amende xam nga loolu dindi ko fi dina jafe loolu dafa bokk ci suñuy jikko ah neexul ba neexul dafa bokk suñuy jikko loolu jikko yu bon yi xanaa neexul ba ne ah boo ko fi senegal ñëpp seede nañ ko de ku si ku si nekk mës nga am problème am koo am koo xam mu xam kenn mu xam kenn mu xam kenn te du mujj fenn loolu nag bu ñu waxante dëgg rek moo fi ne nga waaw nga man fi mu nekk Sonatel laa jóge ka Sonatel avenue Cheikh Anta Diop mën na koo seede lu tax ma dem fa dañu dog sama buumu téléphone pourquoi parce que campagne bi daf maa jàpp ba ma fàttee fay dama ma demee mu wax ma ne ah lii mun koy mënoon nga ma woo ma ni ko déedéet wax ma rek ñaata laa war a fay ma fay mu wax ma ko ma fay ndax loolu bu fekkente ni dangay ngay wootee lëf te yow jiituwuloo ci ëllëg koo ko bëgg a teg dafay bañ. Ibrahima Fall Ibrahima Fall candidat à la présidentielle de nañ ko sox nañ ko ci suñu programme ndax làmb dafa bokk ci suñu aada lu am solo la ndax dinga ci jàng ñetti jikko bu jëkk bi ñaq jariñu boo amee doole boo boo daanee jariñu ñaareel bi fit ñetteel bi jub ndax dangay nangoo daan nangoo daan amoon na benn mbër mu tudd woon Bismi Ndoye ma nekkee gone dafa amoon succès tellement mi ngi dëkkoon euh, Gueule Tapée que nit ñi dañ ko daan topp même bu daanoo mu naan daanu mel ni maa daan waaye nag am na leneen loo xam ne lii am na ci solo ndax suñu baax ci mbiru làmb am na ñaari mbir yoo xam ni fii mu nekk dañu soox bu jëkk bi col gi ni nit ñiy solo bu boobaa jamono booba ay série rabal yu rafet rafet la nit ñi daan sol mu wàcc nii comme belefete yooyu may dafay wàcc ba ci suuf bu ñu bu ñu bu ñu feccee ba wëlbatiku da ngay gis mu mel ni benn cercle rafet lool bàkk yoo mais léegi da ngay ñëw tenir naan nii naan nii loolu amul solo il faut ñu indi baax boobu ñaareel bi moo di nit ñi dañ daan bàkku bàkku dafa bokkoon ci suñu baax waaye léegi ñan ñooy bàkku dañuy fecc rek waaw bàkku nag dafa am solo. chorégraphie yi rafet na nag chorégraphie rafet na. non chorégraphie yi rafet na mais bu fekkoonte ni sol nañu bu fekkente ni sol nañu ma ni bu fekkoonte ni chorégraphie bu ñu ko defoon. ci col gi nga xam ne bii mooy suñu colu aada mais dafay doy waar ñaareel bi nag moo di mbiru bàkk boobu ndax maa ngi fàttaliku bàkk da nga daan woy sa bopp takk sa ndey takk sa baay takk <laughs> Ibrahima Fall Ibrahima Fall candidat la présidentielle ma wax la rek ma wax la benn benn benn bàkk Ibrahima Fall dañ bëgg balaa benn bàkk rek ñu benn bàkk rek benn bàkk waaw pàcc buri bay ana ana pàcc yooyu allez on bàcc buri bay maa sàmb bay ma dooki jóob damel fëmbul maali awa ndànd ak lat degen njaay. géwaloo dem naa Louga. mbëri Louga ñaata lañu. arak naar. maxtaar faal. Kinjuur Louga Tamba Paal noonu lañ lakk mani des na des na des na mani ñetteel bi ñetteel bi moo di bëre ca jamono bëre dóor da daan dóor pour am bunt da daan dóor pour am bunt pour bëre léegi ñiy bëre dañuy boole bëre judo karaté aikido ak lépp loolu dootoo bëre. du enrichissement rek réhabilité du enrichir làmb ji wala. non bëre kay amul solo bëre boxe non non il faut nga am technique bëre dañu koy jàng. Ibrahima Fall candidat à la présidentielle mooy suñu mbër dégg bàkku na fi léegi mooy mooy mbër bi teewagul ci show électoral eh bien y a un point boo xamante ne nii mënuñu ko bañ a wax parce que bu ñu waxee làmb ji aussi xel yi dafay dem lu bari ci ci banlieue bi aussi am na mbër yu mbër euh, yu mag yu fa jóge mais également bu ñu waxee banlieue xel yi dafay dem ci inondation yi mbënd gu metti gi Ibrahima Fall concrètement waxuñu nga constaté parce que ñëpp xam nañ ñu mën a gi demee mais concrètement noo koy faje suñu programme lii la tëral benn suqali ñi nga xam ni ñii dañu nekk ci mbënd mi fi ñu dëkk dañu fay def ay canalisation yoo xam ne yi ndox dootu fa taa dina fa dal waaye du taa maanaam du fa nekk bu ndox ñëwee jaar ci canalisation bi ñu sànni ko géej loolu la wax am na nag ayla la ay bërëb yoo xam ne yi ñu dëkk fa tey ak suba mooyam du dëkkukaay faaw nga am courage wax leen ni leen dañu leen fay jële yóbbu leen foo xam ni loolu am na fi de Ibrahima Fall le plan Jaxaay gars def nañ ko def nañ ko de la ngeen lu bees lu bees faj Jaxaay def nañ ko mani plan Jaxaay ñetti mbir la woon benn bi dañu jëmoon ci élection góor gi bëggul def élection ni xaalis bi mu waroon a def ci élection yi lay def ci plan Jaxaay sànni élection yi loolu la du dëkk ñaareel bi ñi nga xam ne ñii ñoo dëkkoon ca foofa bi ñu defaree kër yi ba noppi dañu ko jox ñeneen bàyyi leen ñetteel bi lañ leen waxoon ni moom lay jar ca njëlbeen ca ba ñuy tàmbali bi ñu àggalee mën nañ ko mën nañ ni dañu ko dañu ko multiplier par quatre ou par cinq maanaam ñi nga xam ni ñii ñoo fa dëkkoon ci seen te lo seen loxo jotul woon seen gannaaw bu ñu leen joxee kër ga itam duñ ca mën a dëkk ñu dem feneen loolu mooy plat jaxaay définition plat jaxaay xam nga jaxaay mooy lan hmm. jaxaay du caali jub caali waaw mën nañ ni ah. caali la waaw waaye caali moom day këf caali day këf <laughs> donc dañu këf dañu këf xaalisu nit ñi hmm. def ci lu leen neex ba noppi jox ko ñi leen neex joxuñu ko ñi nga xam ni ñoo ko yeyoo woon hmm. loolu këf la hmm. waaw ah. c'est pas pour rien ñu tudde ko jaxaay ah yàlla moo leen weer mu ngi noonu <laughs> te mu ngi noonu monsieur Fall waaw monsieur Fall am na am na fi tam beneen am na beneen coow waaw mooy euh, coow Casamance bi daanaka léegi euh, ñaari président romb bi euh, bu ñu weesu bu ñu moo bu ñu moytul daal maanaam ñaari léegi ñaari président romb fi te coow li du du fay yow ci sa ci sa ci sa programme loo ci loo ci loo ci nar mbiru Casamance ñeenti mbir lañ ci wax ci suñu programme taxaw tem bu njëkk bi meddi moo di Casamance problème bi du problème mu waa Casamance problème mu waa Sénégal yépp la ndax Casamance boo fa demee xeetu Sénégal yépp ñu nga fa ñaar kon bu fekkente ni dañu koy régler xeetu Sénégal yëpp war nañ cee bokk du gouvernement bi rek moo ko war a aakimoo daf ci war a boole opposition bi daf ci war a boole autorité religieuse yi autorité traditionnelle yi cadre Casamance yi population casamançaise bi ñaar loolu tamit gars yi def nañ ko fi fu ñuñ de ak yeneen ak yeneen la mu joxe non non lu bees lañ lu bees lañ bëgg a dégg. waaw man man de da ngay déglu ba ma àggale. waaw bismillah waaw da ma laaj man la ñeenti mbir la. waaw xaj na bu njëkk beek ñoom li ñu def yam na waaye ci tegu wuute na. waa ñu ngi déglu waaw nga déglu bismillah léegi euh, ñaareel bi ñaareel bi moo di dañ ci boole njiitu réewu Gambie ak Guinée Bissau hmm. ndax Casamance dafa nekk diggante Guinée Bissau ak Gambie. waaw dama ngi waxtaan xeet yi.